force police bi seen bët day nekk ci kaw euh, muy guddi muy bëccëg seen bët dafa nekk loolu loolu moo tax ñuy wax garde à vue man dafa war a nekk ñu ko surveiller tant que ñu jëbal ko procureur n'est-ce pas mu mu décider ci li a teg donc su dee suicide am na chambre de sûreté li nga xam ne moom moo war mooy procureur ubbi enquête pour xam ci ñan anam la nit kooku maanaam dem bi di jël di jël bakkanam surtout que euh, chambre de sûreté kenn amul droit dugg fa ak loo xam ne mun nga gaañ sa bopp lépp loo xam ne mun nga ji mun nga ko jël pour gaañ sa bopp ba di ci xaru kon théoriquement kooku euh, Abdou fay moomu war woon yore dara loo xam ne mun na tax xaru ci gis cellule bi kon su dee dem na ba di xaru ci biir responsabilité police dafa engagé wu